moo ngi gane si àdduna ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ci atum 1954 fële ca Louga moom Moustapha Cissé Lo doon koo xamante ne ku am taxawaay la am jëmm itam moom mi ngi doore carrière politique am fële ci parti bii di PLP te ki ndem si yàlla maître Babacar jiite woon ko mu jàngee fa politique laata 1987 mu dem ci parti socialiste ci ndigalu sëriñam sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké ñetti weer après alternance bi am ak maître Abdoulaye wadd sëriñam bi jox ko ndigal mu dem liggéey ak kii di Abdoulaye Wade mu jaaree ko ci ki fi nekkoon meeru Dakar di Pape Diop moom Moustapha si Lo ñu ñu xamal ne jàngam tamit taxu ko sore lool ndax troisième la yem politicien bi doon koo xamante ne loolee nekk na frein ci moom ndax lépp lu mu bëgg wax daf koy wax lépp lu mu bëgg def daf koy def kenn mënu ko koo tere. ci biir parti démocratique sénégalais boobu mu nekk. ci la wéy di liggéey ak maître Abdoulaye Wade ba keroog mi am jafe-jafe diggante Abdoulaye Wade ak Macky sàll ca la mujjee dem ànd ak Macky sàll ba nit ñi dàqee Macky Sall fale ca assemblée nationale ñu ànd génn moom ak yeneen leader politique. ci noonu ci leen tegee parti bi di APR alliance pour la république. boobile parti ci lañ ànd ak candidat Macky Sall mu daal di jël réew mi ci atum 2012. mu doon loo xam ne yombul woon dara ci ñoom waaye loolu lépp mi ngi ànd ak président Macky Sall ñiy wër réew mi. moom Moustapha Cissé Lo naka la ñu jot nguur gi rek muy xamle ne Macky Sall moom li mu bëgg a doon moo di président assemblée nationale. mu xawoon indi xiini miini digganteem ak njiitu réew mi Macky sàll ci mujjantal ga ca lañ ko def vice président mi poste boo xam ne moom la yor bi Macky Sall yoree réew mi ba léegi moom mi opérateur économique doon ku ràññeeku ci ay position ak ay waxam ndax bi président Macky Sall dooree te ñëpp doon wax naan juróom-ñaari at wala juróomi at lay def bokk na ci njëkk taxaw ne Macky Sall juróom-ñaari at lay def moom opérateur économique bi di ancien agent bu ONCAD jamono ji nag moo lëmbee actualité bi li ko waral mooy saagay dox ci digganteem moom Yakham mbay ak Farba ba waral sax ñu dàq ko ci parti bi di APR di parti boo xam ne moom dafay wax chaque jour ne partem la ndax moo ko sos doyatul fële ca assemblée nationale groupe parlementaire ba mu bokkoon di bennoo bokk yaakaar ñu daal di ko fay dàq itam moo tax jamono ji ñu bëri di samp ab laaj lan mooy ëllëgu Moustapha Cissé Lo su fekkente ne ànd naag régime yi fi jot a jaar yëpp te kenn jotu ko dàq bu régime i Sall bi nag moo ko mujjee dàq di ab expérience bu bees boo xam ne mi ngi koy doog a dund. waral ñu bëri yaakaar ne ambition yi mu doon am fii ci mairie bu Yoff ndax ba mu nee dafa bàyyi di militer fële ca Touba dafa ñëw fii ci Ndakaaru ne fii la fas yéene samp ndëndëm. nëbbul keneen ne dafay bokk ci élection locale yi am te li ko tax a jóg mooy nekk maire bu ndakaaru kon jamono ji ëllëgam ci politique bëri nañu ci samp ay laaj